waa Serigne Soir ah yéen ñi xam ne yéen a si bu Serigne Soir bi ngeen leen di kontaan seen bu baax a baax waa di leen defal analyse ngeen leen gën a comprendre série bi neex bu mu neex ak sens bu mu am quoi waaye nag tey dañuy taxaw si diggante ki nga xam ne mooy ah Dolly ak Sangomar waaw gis ngeen ni Dolly nag. sangu maa ba mu koy doxaan boobu doog yi commencé woon bañantu fii naan ko mëntu ma sëy ak yow mais sangu maa xam ne mi ngi hôpital dafa accident mi ngi hôpital mais ba mu woowee doog nag doog yi ñëw ah, mu ne ko man instant bi pare naa pour sëy ak yow quoi waa waaw doog nag lan moo tax mu ne pare na pour sëy ak moom ndax accident bu mu nekk ndax situation bi mu nekk moo tax war tamit mën naa am parce que son xoolee def ko xaw a yërëm quoi waa xam na ni sangu maag moom kese moo fi nekk soxnaam nekku waa gisul soxna gisul doom gisul yaay gisul dara dara quoi waaw loolu tamit xam naa affaire boobu mën naa yokk a tax mu ne di sëy moom waa waaw te sëy bi man gëm naa ne dina am parce que son xoolee sangu maag moom bëgg na dori quoi parce que dafa gis si dori ay jikko yoo xam ni waa jigéen noonu la waa war a mel quoi gëm na boppam day daan dore waaw soo xoolee loolu moo yokk tax moom mu ne dafa bëgg a takk Dori mais Dori tamit moom nangu na mais Sangomar accident bi métti na accident bi métti na quoi mais nag xam naa yàgg yàgg dina si jóg ah nekkaat en forme mais suñu nekkaatee en forme ah daal di gën a jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy dugal bu boobaa série bi gën a neex waaw parce que dugal moom instant bi kontaan moom kontaan parce que Sangomar def na. première défaite te mooy accident te accident moom kontaan na si mais nag ah dina jugaat te su te moom ah dina tàng si ki nga xam ne mooy dugal torop torop torop mais kon gars yi li leen mën a wax ah bi ngeen di posé mooy ndax dugal ah mooy ndax Sangomar ak ki nga xam ne mooy Dori ñoom ñaar seen diggante dina nekk ak yéen ah ban xalaat ngeen gis kan moo war a tax seen diggante nekk quoi ndax Dori dafa gis ni Sangomar dafa am xaalis wala instant bi def koo yërëm moo tax mu bëgg a sëy ak moom wala kon gars yi commentaire boobu ah dama leen koy bàyyi ah yaa ngi jëf abonnez-vous et partagez la vidéo